parce que tamit euh, yoruñu xoluk iñaan parce que il faut pas que nit ñi yaakaar ne dañoo iñaane wala dara dañoo dem ci guerre yàlla may ko ndam mais am am lu ñu metti mooy tey trahison boo xam ne ñun suñu boor mooy dañoo trahir par par par notre chef de parti muy Macky Sall loolu moo ñu metti te loolu la ñuy yàgg te man yàgg naa ko wax avant lii di ñëw tey nag am naa benn altercation ak Ousmane Yara bi nga xamante ne tey jàpp naa ne tey moom moo nekkoon ñëpp daan nañ ko tudd ci le protocole de mais tay dañ ko gëna firndel moy lan tay man ak mom ñu ngi amé problème ci biir présidence de la république ci biir palais bureau président de la république mu génn fa and ak doomu bazoum bi and ak ay ñeneen ñoo xamante ñi ngi def bay et vient yaataa yómbee ci biir palais de la république tay nak mu non en tant que tay républicain en tant que am fofu bureau man di xey xëy tay liggéey ma démon jëli samay bagage pour libérer bureau bi pour aussi tamit ño xamantene tek nañ fa jamm ak salam muy gendarme fa nek personnel présence bi ñep ño xam ñu ngi fa tay ma jamm santé ñom balanté ñom ak euh, wax leen bonne chance ci luñ fay nek parce que amna na palais amna personnel buma démé ba jël sama bureau ma ngi sama bureau mu ngi nek secrétaire général secrétaire général de la présence ma ñew pare jëm service protocolaire pour wax wa protocole président tamit jaarama ñom sen bureau mu ngi nek au niveau euh, président de la république moy el elle boo xamante ne booy escalier yo xamante ne ñëpp xam nañ ko peut-être bu ñuy nommé gouvernement fofu le ministre secrétaire général di taxaw escalier bo mo jëm bureau président ak bureau protocole bo yéegee ci escalier bi bureau président mu ngi nekk el gauche bureau protocole mu ngi nekk el droite ci la dajanté malien boobu ñuy wax Ousmane Yara buñ dajé mu sandim ay cadeau néma waxol na la Amadou Ba du am ndam ak génn bureau président ak un sourire. mu ne ma waxoon naa la Amadou Ba du am ndam mu làkk ma pël wax wax noonu wax euh, mi yu na ma Amadou Ba wantaat au président sa veut dire Amadou Ba du fi nekk président waxoon naa la ko mais on s' était lancé des défis quoi man ak moom avant mu ne waxoon naa la ko te gisagu leen dara am nañ benn list boo xamante ne yor nañ ko dinañ leen topp benn par benn surtout yow Omar comme yow yaa ci am làmmiñ di ci wax yow moom yow la ñu njëkk rek mu ànd ak beneen beneen waaye ak doomu président euh, président Niger bi muy Bazoum kooku tamit ñëpp xam nañ ko keroog foto yu ma wonee au niveau de au niveau de corniche bi photo yu ma joxoon waa IGFM photo yi bu ñu demee oto yi fu ñu gaaree woon ci biir doomu kër kooku foofu la dëkk ci kër googu la dëkk kër googu la amee échange yi yëpp Ousmane ko gisee mag Macky Sall ci biir kër googu tamit am na lu fa xew tamit loolu après dinañ ci ñëw mu wax ma ko ma ne ko doo yàlla doo dara mais en tout cas si si nit ku képp ku trahir Sénégal di ko gis mu ne ma yow moom gisagoo dara ñu wax wax wax mu mu échanger ma échanger mu ne ma léegi mu mu ne ma mu saaga ma bu ma saaga nag ñu saagante ma delloo ko mu léegi may avancer di avancer mu daw mu ne daf may dóor. lu mu la saaga. ma saaga ndey ci pël ma ne nee naa xam nga c'est pas wax ko daf ma saaga ndey ci mu ne ma dinaa lii lii ma ne ko nag ci biir loolu ma ne ko avant loolu ma ne ko. en tout cas yow malien nga da nga war génn suñu politique intérieure parce que man awma droit nekk sénégalais dem mali difa difa dugg présidence ba am fitu dajante collaborateur président de la république ba diko saga donc ça veut dire que tay ousmane yara amna lu ko may doole amna lu ko wax lo amna lu nekk ci ginaam te muy génn net bureau président mo wax loolu ma ko malien nga suñu sa yon nekku si suñu politique intérieure réew parce que affaire yi ci lama ci lama nak ci lama saga bu mako wax saga ma ko mais avancer non pour dugg ci bureau protocole mu daw mu ne daf mooy dóor bu mu daw sa y un garde GIGN bu fa togon personne n'a réagi GIGN ñom ñop ken réagirul mu ne daf moy bu mu ñoy di dóor nak bu mu doré dóor ma fenté man nit mu dóor ko mu daanu bu mu daanu dóor bi mu la dóor dal na la no dalu ma dama dama ki dama pousse mu dóoraat ma dóor ko mu daanu foko ko dóor ah fu ko dóor <laughs> xamna ko donc mu daanu mais en tout cas dal il m'a dóor na ma j'ai répliqué mu daanu parce que presque mën jàpp sax parce que nous ma gën de corps laa def bu mu dóoree ak nu mu ñëwee ak élan bi bu ma fen de corps bi mu ne mbab si suuf après xam rek mag bu daanu moom day am gàcce. mu continuer di saaga di wax élément GIGN ma ne ma wax ji moom ak ñu mu àndal ak benn bu sol ma saaga di wax lu apparemment man maa nekkoon étranger tey biir présidence la république parce que j'ai même regardé les gendarmes même n'étaient pas avec moi pratiquement mon mo qu'on le protéger aujourd'hui des gendarmes mo qu'on le chouchou du palais man mi fay liggéey tay j'ai remarqué que j'avais pas une assistance gars yi jël ko wàccee ko ci souf mu taxaw fofu non di journaliste di di jël mu taxaw di saga di saga ma bëgg a gendarme ne ma do il faut nga taxaw xal mo non mënu ma nekk palais j'ai mon bureau ici je suis personnel du palais ba tay ba xam ba tay sama service jeexul sama service mu ngi jeex le 2 ñu ne ma watch do après nous avons reçu des ordres du gouverneur militaire que nañ la nañ la fële e e ma tudd conk man japp ne ne man len ah comme da ngeen ma bëgg yobbu yóbbu man la ma leen kon kon waxal Ousmane Yara mu taal auto man ma taal so ñu dem dajé conk ñu ne ma déedéet yow da ngay dugg suñu auto man kon arrestation la wala ñu ne ma ah xamuñu de en tout cas dal da nga wara dugg suñu auto que pour que ñu dem man len ok man len leg mën na ñaan capitaine bi capitaine tin man ko mën na la ñaan est-ce que mën na dugg sama auto mën na ma condition moy da ngay ànd ak un accident donc ça veut dire que j'ai été arrêté au niveau de la présidence de la République parce que je ne suis pas sorti là-bas libre de mes mouvements donc j'ai été conduit à la brigade de Tchonk je ñu je me remercie mon avocat M. Moustapha Mbaye mi moo ko woowee mu déclaration tant que nous mu mais ci biir le euh, gendarme ma le commandant même le commandant mbaalo l'a fait. ci mm-hmm. mais apparemment il avait reçu des instructions pour ne humilier nous avons dit que Nous avons waxee téléphone ak un ton très ferme mais je l'ai rappelé toujours que j'étais collaborateur je suis collaborateur du président de la République autorité civile là, un devoir de faire. war nañ mais apparemment je n'étais pas bien accueilli là-bas au contraire gendarme bi fa a des gendarme qui vraiment après jox ma chaise ma toog euh, jël sama téléphone Les gens wax laaj ma le non, c'est mon avocat lay xaar nous sommes restés là-bas plus d'une heure de temps Ousmane Yara mis... gendarme ne ma Ousmane Yàlla daf maa porte plainte man ko non kuma porte plainte te ñëwagul xanaa man duma wax léegi na ci lañ ko wo mom mom moy patron bi man leg tey nañ ma fa mom ci lañ ko wo pendant plus de 1 heure ci la ñew bu ñewé wa waa Ousmane mu ñëw ndeysaan ak ay mbokam ak le colonel Touareg bi ma mësoon cité ñom ñep ci ben émission 7 TV bu ngeen démé ci lañ ñew ñom duggu ak le commandant duggu ci bir man génné ma duggal ma ci poste de police bi ñu ma léegi naa toog foofu ñu wax mom mu wax mu def procès verbalam ci biir procès verbalam néna dama ko saga ba pare nee na aussi dama ko dóor ba gaañ ko ci biir loolu nee aussi tamit damaa saaga Macky sal damaa saaga Macky Sall lay yooyu la wax j'ai injuré Macky Sall man mais moom après ci biir fu mu daanelee ci procédure foo xam ne nekku ci dëgg nee na moom porte ma plainte na ma après foofu xam nga sama avocat ñëw ñu wax ko ñu ne ko kii def na déclaration mais nee na baal na mais xanaa foofu laa waroon ñibbi ñu ne déedéet ñu ne noonu naa def déclaration ma def déclaration bu may def après ñu ne ma léegi. ma ne léegi ki ma porte plainte ki moom nee na porte plainte mais man dama koy porte plainte parce que déjà daf daf ma fenal déjà cause de blessure parce que moom moo ma njëkk a dóor déjà violence bi bu mu def ci ci ci man euh, kii gendarme bi ne ma non moom porte la plainte nee na porte plainte mais nag il faut nga toog xaar ma ne ko loolu laay toog xaar comme porte plainte ñu ne ma non léegi da ngaa saaga Macky Sall danga saga saaga donc man len donc ça justifie que Macky momo japplu parce que à travers son gouverneur militaire à travers sa gendarmerie toujours buñu ñu fàttali moom le président de la république ma toog man len leen nag ngi xaar sama maître Moussa assisté ma ñu len ñi ngi xaar nan lañuy def nan lañuy def ba ba ñi xam tok nañ fa nag lu ëpp 3 heures de temps dogu fofu lañ ndogoo ba plus de 20 22 h 23 h apparemment ñu woowaat ma notifié waat ma ne ma seet nañu lepp xol nañ vidéo yi xool nañ lépp mais saagawu ma présent présent. te aussi tamit la dernière nouvelle présent nee na nañ ma bàyyi ci dernière nouvelle yi mais toujours lu may jàpp rek mooy ci ci coow li mooy président de la république am na ay caméra bu ñu buggee lu leer dañuy dem dañu waroon génn génne caméra yi deuxièmement man mënuñu ma jàpp man may sénégalais di collaborateur président de la république liggéey biir palais un malien fekk ma fa de quoi saaga ma fa ñu jote fa même bu ñu nekkoon man maa tooñ am naa benn traitement boo xam ne war naa ko mën a am en tant que autorité mais tey malien boobu moom lañ jox traitement bi moom lañ jox dëgg bi man lañu arrêté man maa ndogoo foofu man lañu nangu samay téléphone man lañu def benn garde à boo xam ne def nañ ma ko mais li may wax toujours rek di sant yàlla bu baax di julli ci di sant samay mbokk yëpp mais di wax aussi le président Macky Sall na delloo si waat xelam bu baax a baax xam ne ñun ay njabootam lañu du ñu ay doomu géeñoom mais ay njabootu politique am lañu parce que tey 15 ans engagement tey boo ko wàññoon suñu at du ñu dese dara 15 ànd ak moom jàppale ko dimbali ko defal ko lépp ci lépp loo xam ne soxla woon na ko tey ci réew mi tey ji jàppal nañ ko ci xeexloo nañu saagaloon nañu def na lañu lu nekk tey façon même lu nekk loo xam ne ko wax nekkoon moom Macky Sall xam ne man xam naa parce que tey nee am leen amnistie bi ñoom xam nañ lu tax ñu def ko parce que man am na lu bëri man aussi nee naa bientôt dina damay bàyyi ba président Diomaye toog dinaa def ay yeneen révélation yu bëri parce que xam naa ci lu bëree bëree bëree bëree bëri bëri ba protocole Cap Manuel bi ba doomu Bazoum bi nekk di ginnaaw am 10 pour cent ci yenn affaires yi loolu yëpp xam naa ko dinaa ko révélé mais ne bu ñu ma bëggee jël sama bakkan nañ ko jël garaawul mais pour dëgg man ku ma xam-xam taxawaay dëgg laa taxaw bu ñu buggee jël sama bakkan tamit amul problème mais li ma xam bu soobee yàlla dinaa ko wax ba ma daloo dinaa ko wax li ma xam dinaa ko dénoncé parce que tamit du yoon ay nit ànd ak yow ay gor ànd ak yow muy nga sacrifier ñëpp ngir lan ngir sa pexe ne soyez pas étonné suba ngeen gis un Matar Cissé dans le gouvernement de Diomaye ne soit pas étonné ngeen gis ay ñoom Moustapha Ba dans le gouvernement de Diomaye ne soit pas étonné demain après demain wala 6 mois après ngeen gis ay ñoom Thérèse ay ñoom ñeneen ak ñeneen ñu xam groupe boobu ngeen gis leen dans le gouvernement Diomaye parce que Macky Sall a déjà négocié pour eux loolu yëpp aussi tamit dañ koy dañ koy xam mais en tout cas je déterminé et focus sur mon combat tey tamit du Amadou Ba moo tax may engagé bu xeexee man damay xeex bu xeexul damay xeex parce que nag noonu la ma yàlla bindee te damaa jàpp ne tey euh, li mag li dal APR tey dal benn Bokk Yaakaar dal Sénégal tey Macky Sall li ko Sénégal defal yëpp mérité wul mu def lu mu def xam nañ dinañ wax élection yi ni ñu ko cent 350 mille voix yi Touba ñi fa nekkoon nan lañ def ba midi élec kii Amadou Ba ñëwul mandataires yi ñu tere dugg seen bureau de vote siégeant yi ñu tere dugg seen biir vote yooyu yëpp après bu pare dinañ ko leer incha allah mais maa ngi jégaluwaat Sénégal di jégaluwaat sama mbokk di jégaluwaat sama papa sama yaay tey dafa daanu ndeysaan bu mu yëgee affaire bi maa ngi koy maso di ko ne nag il faut parents yi aussi xam ne engagement politique moo mel noonu man gënuma Ousmane Sonko gënuma Diomaye Faye gënuma ñi ñu tëjoon kaso gënuma ñu ñu jàpp gënuma ñu ñu torturé déedéet nit bu demee ba dugg politique il faut mbokk yi xam ne engagement la te y a un prix dañuy dee soit dañuy tëj kaso soit dañuy torturer soit dañuy brutaliser mais nako ko mbokk yi xamee noonu xam nous sommes prêts pour répondre aujourd'hui de nos actes yiñ def mais nous sommes aussi prêts pour le combat il faut que ñu xam lolu mais en tout cas tay lu xew tay damay wax ak euh, mon mentor ndeysaan sama grand Macky Sall c'est mon mentor xamal né président Macky Sall lu ñu def mérité wuñ ko li ñu taylee mérité wuñ ko dem nga tabax sa cœur Maroc sa Marrakech nga dëkk fa tabax fa lu ëpp un hectare nga def fa sa lépp nga jël sa doom Amadou sal jël ñëpp yóbbu leen jël sa jabar yóbbu leen jël say oto yóbbu leen jël sa cuisinier yóbbu leen négocier sa lépp tey ñiin nga saraxee ñu nga saraxee tout un parti nga saraxee toute une nga saraxee toute nation nga saraxee tey tout une coalition nga saraxee tout le Sénégal tey ñi amoon ci yow yaakaar du Fouta à Bakel de Bakel

mais duñu téré duñu téré xex parce que nak buñu ñu ànd ak moom du poste la woon du la woon et aussi chaque fois dama dégg mu né luma défal boy mais japp nañ ne ñun lu la défal mo upp moy jox la réew pendant 12 ans jox la présence euh, jox la majorité à l'Assemblée nationale trois fois jox la stabilité réew jox la loolu yëpp tey boo jàppee li ñuy defal tey bu nekkee lii nga ñu yéene kon tey lii duñu bett parce que nag ñun amuñu amuñu ci yow. du auto lañ ci am du leneen lañ ci am engagement rek lañ ànd na yow nga ñuy wax saba ah, ale nañ dem nañ dem nañ dem xeex nañu def nañ lépp moo tax xeex nag yaa ñu ko jàngal parce que lu ngay xeex Ablaye Wade tamit nii la woon tey dañuy taxaw xeex yow jàkkaar la yow parti bi nga bàyyi ko ci nii wala nga bàyyi ko ci naa boo ko bëggul bàyyi ku képp koo xam ne gëm nga ne dañoo war a taxaw ñu taxaw ànd xeex mais nag une fois de plus xeexaluma kenn jëluma combat kenn dëgg laay xeexal dignité parti bi la xexal dignité ñi andon ak moom tay la xexal kenn nekkul sama ginnaaw encore une fois di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla di sant ñëpp di jéggal waat ñëpp si ñëpp di waat ak si ña àq ñëpp en tout cas daal li may wax toujours président Macky Sall wax dëgg yàlla li nga ñu def li nga def Sénégal bés bu suñu àq dalee billahi wal kitab bi ak ak weeru koor bi du la jib parce que nag xam nañ lu xew lu bëri

musul am ci réew parce que conseil constitutionnel waxagul résultat définitif ba jomay jomay est un président élu mais il n'a pas pris fonction il doit prendre fonction le 2 avril mm-hmm. donc waragul tim ci dossier sénégalais amul droit tim ci ben dossier Sénégal xawma d'ailleurs ndax yéen koy sënk parce que dama bëgg a buur dama bëgg mm-hmm. yéen aussi journalistes yi ngeen di xalaat lan la Macky Sall di yàqamti bay bay won jomay démb dossier ba di waxtaan ak moom te te jomay dafa war a waati ba pare

tey le président Macky Sall nu mu def ba Diomaye gagné moom xam na ñun xam nañu parce que nag boo demee ci yenn gox yu mel ni Touba dama leen laaj ay journalistes ngeen toog leen ba midi bulletin Amadou Ba nekku fa mandataires yi nekk Touba sous-préfet ndaam dem na ba ma joxuñ kenn convocation ay arrêté la ñu te suñu siégeant ñu ngi dugg ci bureau yi ay 14 heures 16 heures donc lu ci xew dafa bëri te mag yi xam na xam na lu ñu wax ay wàllu bureau xam nañ ñaata la toll 350 000 voix yi ñu dugali xam nañu moo tax nan ma la du ñàkk du ñàkki mais c'est la manière c'est la trahison de Macky Sall qui nous fait mal c'est pas le fait de perdre le pouvoir te xam Macky Sall votelul Amadou Ba soxnaam votelul Amadou Ba et Macky Sall xam na soxnaam xam na te ñu mu woo pour ñu wooteel jomaay ñi ngi fi deewuñu ñi ñuy def campagne pour ñu jàppale jomaay ñi ngi fi deewuñu te loolu yëpp après dina leer parce que am na si ñuy leader ñoo xamante ne tey dem nañ Fuuta di wo ay nit pour ñu pour ñu voter Diomaye au niveau de Dakar parce que lu wax ni du affaire ñak du ñak mais c'est cette trahison interne là c'est ça qui fait mal mais nguur yalla moo koy joxe parce que ñu gëm yalla lañu nguur yalla moo koy xañ ñu gëm yalla lañu mais trahison ça ne se pardonne pas c'est ça loo am moy Macky Sall lépp lu mënti am lu ko Amadou Ba def Amadou Ba def ko dara parce que gëm na ne ku mën a Sonko Sonko ak Macky Sall lu ñu meloon bu mënee baal Macky Sall bu mënee bal Sonko mu wara a bal Amadou Ba Amadou Ba musul tal rew Amadou baa musul taal université Amadou Ba musul koo traité il mérite définir comme Samuel Doe Amadou Ba musul ko saaga ndey Amadou Ba musul ko wax lu bon Amadou Ba musul yàq nguuram musul koo def dara mais tey bu nekkee sonk la mun a baal boo waxee ne mun ne lu ma Amadou baa def ñuy wax ay dossier pétrole dañuy day wax lu ko neex Amadou baa def ko dara mais Macky Sall yàlla na yàlla àtteeg moom. mais wax la moo gis naa nga ne am euh, président Macky dafa trahir la ma waral trahison boobu bu nekkee en réalité trahison am na.

parce que Nak Bassirou n'est pas encore président de la République en fonction jour le 2 le war a dugg Ablaye Wade bu muy dugg palais le 2 le dugg Abdou Diouf bu muy dugg bu même chose il faut nga prêter serment Macky Sall pour nga dugg palais. loolu il faut ngeen xool ko ngeen gëstu ko ngeen xool lu waral Macky Sall di précipité wu waral parce qu'il a besoin des images moom ak Sonko ak parce que le 2 bu jotee Sonko du du ci bokk parce que am na fa xam ne Sonko bu ñëwee foofu lay yem parce que ñëpp ñoom ñaar kese ñoo def tête à tête boobaa du am du am image image il avait besoin de ça.

ba Macky Sall la mën a dem parce que même buy defar image am Amadou Ba gagné man pour man c'est image am di gën a rafet que mu ñëw jël lépp yàqal ko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye lan la ci Macky Sall di gagné. xam nga yéen procédure ngeen di xool Macky Sall lu mu njëkk a dafa pousse élection yi dëgg loolu dëgg. waaw ah, defal naa non lu tax ñu koy jàppale parce que ay ay caaxaan la lu mu waxoon dañoo ne Amadou Ba dañ ko ger dañoo ger ay juge du conseil constitutionnel mooy valider résultat Diomaye tey. il faut ñu xool Macky Sall fu mu jë jëmee ak ñun parce que ñun man mi nekk ci biir lu tax ma bañ xamoon naa fii la jëm ak ñun parce que nag j'ai des informations comme lui ça c'est de un mu pousse élection yi sans pour autant que mu woote dialogue mm-hmm. deuxièmement mu woote amnistie te pourtant Macky Sall def na fi bu mu tëjee Sonko bële huit mois neuf mois ak ñoom Diomaye douze mois tey lu tax wootewul dialogue lu tax wootewul amnistie pour na la Macky boppam kese moo ko ñor ci image boppam la nekk te leen la même bu ko Amadou Ba defoon ku mën a baal Sonko Macky Sall bu ak Sonko bu ñu nekkee nous avait dit Macky Sall nous avait dit benn moment Gloria nit ñi xam nga Macky Sall il est politique ñëpp xalaat mais Gloria bi Sonko la woon mhm. ça qui est la vérité. Gloria moo nekk noonu Sonko la donc il nous a fait ses coups politiques loolu la pour image am pour aussi xam na ne Amadou bu yore réew mi pendant cinq ans dina Amadou Ba xam na APR xam na réew mi xam na parti xam na lépp. day ñëwaat positionné waat cinq ans deux mille vingt neuf day amul ba day sam bandandam moom na ci loolu la nekk mu ne non te aussi beneen aussi ñëpp xam nañ ne tamit Macky Sall aussi xeexoon Aliou Sall Aliou Sall ak Macky Sall ñoo bokk ndeeg baay Aliou sal day toog deux ans trois ans du gis Macky Sall du wax ak Macky Sall ñu noonu xeexoon ko ñoo ñooñu xeex njabootu Macky Sall ñëpp ñoo xamante ne ay rakku Macky Sall te kook koo gis ku bokkoon ak Macky Sall ndeeg baay mos gisoo ko muy dawal oto bu ko muy taxaw gisoo ko dara Macky moo ko ko gis muy taxawal ci nguur gi donc c'est ça qui continue c'est ce combat là moi là lu ñu travers Marem, lu ñu que Paul du fi on ne pouvait pas le parler parce que n'y mais combat combat combattre c'est ce combat là qui a continué et ce combat là qui est là. Eh, est-ce que l'affaire était déjà pliée parce que nous avons sondage li présidentiel est-ce que Macky Sall demu ba candidat pertinent, une porte de sortie repousser l'élection yi pour dire que nous na on a les il est lui on a les statistiques n'a jamais perdu les élections la pro année qu'est-ce que c'est 36 pour moom kese la sans l'apport de Macky Sall te Macky Sall doo Macky Sall amul 15 même 350 000 voix yu mu denc ba ba sottil ko Bassirou donc c'est le même scénario de 2019 jékki-jékki rek bu Abdoulaye 58 taf taf def conférence de presse taf taf même scénario moo xewaat 2024 C'est la même méthode de Macky Sall te bu muy de l'air. lu leer ne jarul yuuxu jarul nañu xaar résultat est ce que vous avez compris un peu son langage. voilà langage de codé il a parlé depuis.

mais man lima ma xam ba tay man Omar Sow personnellement man ak Omar Macky Sall ak man politiquement man jeexna Amadou man nag mom lu muy def mom mom lool mom la concerne ak njabotam génn na affaire bokkutuma affaire kon mën nañu xaar Omar Sow dem rejoindre euh, Omar Sow nekk Diomaye Diomaye mooy. déedéet man en tout cas je suis dans l' opposition. Omar du transhumé. je suis dans l' opposition. Omar Sow du transhumé mais génn nga APR. APR génn naa ci moom set wicc. mais Omar am na ñuy wax ne peut-être sa réaction bi bëgg buzz la d'être de ce genre. war nga mën a dal ànd ak gars yi mais buur buur pourtant ça fait combien de mois may communiquer ça fait combien de mois communiquer may alerter. Mm-hmm. li ma waxoon yow amul wala am na non dama leen laaj est li ma waxoon yow am na wala amul dama bëgg ñi internet yi nañ ma dégloo xel bañ ma dégloo xool mm-hmm. li may wax bu nekkee amul nañ ma dangay ngay fen li mu leen wax mooy li mu leen waxoon yëpp moo am. di pousse élection yi. maa njëkk génn yow man a yow dañu nañ Côte d'Ivoire ci benn néeg. nga ne ma nga ma explique di toj ma leen déedéet Macky lii la bëgg a def lii la bëgg a def yaa ngi nii man j'ai les j'ai les tous les preuves j'ai information ah à au même niveau que lui Macky Sall parce que ñu muy toogandoo di nàccandoo ñu am na si ñoo xam dañu may informer. dem nga ba ne ma bu élection yi bu ñu ko poussé Amadou Ba Macky Sall dina fexe ba Amadou Ba du bokk ci élection yi. ci élection yi loolu la bëggoon mënu ko mën a xaaral ma rendi la. gis nañ Macky def interview BBC ne li tax mu bëggoon ñu pousse élection yi mooy fexe ba Sonko bokk ak Karim Wade. est-ce que li nga wax nii loolu yëpp da koy dëggal wala. en tout cas pour le moment je m'arrête je m'arrête